ñun liggéey si jàmm euh, yàlla la bokk dañuy dañuy liggéey dañoo njaboot dañoo am ay employé dañ leen di fay mënuñu toog dix mois liggéey yu kan moo ñu gën a xam impastage yi mais kan moo ñu gën a citoyen kan moo ñu gën a mën kan moo ñu gën a responsable ñun xam nañ li ñuy def suñ doon joué ak à dix personnes on a fait joué fa ak trois personnes mais au moins xam nga ñu bàyyi ñu ngi def suñu liggéey dans les normes ñeneen ñu bëri ñu ngi liggéey te yoo xamante ne boo fa demee kenn aseptisé wu ah boo demee foofu kenn kenn respecté respecté wul benn mesure ñoom ñu ngi am seen i événement et tout te ñëpp a ngi koy gis donc bu yàgg day mel ni kooku li. ok si artistes yi ñëpp